alors Cheikh Bouya ngoonee la compagnie na doore ak l'observateur dafa mel ni euh, Idrissa Seck laay seen. Idrissa jëm ci lu soxal langue politique bi fii ci bu Sénégal euh, contrôle yu euh, parrainage yi idi en danger ndax xam nga ne lu ëpp lu toll ci mille doublons yoo xamante ni itam war na ko rek mën a joyantiwaat ngir jàll ci li nga xam ne nag moom moo di étape bu parenage bi jàppal na itam bi la yoon moom mooy nekk mujjanteelu destin am ci li nga xam ne moom moo di bu fekkee lu ko sàkku lu ñu mel mi ngi ci page 2 jàpp 3 euh, bu euh, l'observateur l'observateur euh, di kat bu baax a baax ak entretien boo xamante ni séq na ko ak gaawaan Faye xam nga ne moom mooy bu projet spatial Sensat les premiers clichés du satellite sénégalais di na ci bu baax a baax page 5 moom moo rek daal di xaatim loolee la xew ca diwaan bu Pikine muy lu doy waar jàppale nag NDM Ndiaye moom moomee dañu ko fekk mu daal di faatu ci néegam moom ak benn colocataire yaram moom moomee nag euh, ñu ngi fekk mu daal di faatu waaye daanaka euh, solo di yëree tribunal euh, bu Ndakaaru jàppal na yenn ci ay détails yu procès bu vol bu bébé bi ca pouponnière bu Ndella Madior Diouf ki nga xam ne moom moo di vigile bi ak mu doon àndal di def loolu boobu la ñaawteef ku moywul mu des nañoo tëdd lu toll ci juróom benn weeri kaso dikkaat nañu ci ab interview boo xamante ni l'observateur séq na ko ak international ancien international sénégalais wi di comme jamais daanaka waxtaanee na euh, lu euh, bëri euh, ñeel équipe nationale bu Sénégal ginnaaw l'observateur beneen ab yéen kaay. enquête ak way politique yi bëgg a dagaan baatu askan wi ñenn ñi dafa mel ni duñ bokk de. piso piège la rek di di pay lu ni mel ndax xam nga ne segg gi jëm ci conseil constitutionnel am na ñu bëri ñoo xamante ni war nañoo war a mën a joyantiwaat dabuwaat dagaan itam baatu askan wi enlèvement yu xaw xale yi ca kër yërmande moom Jean Noël ak itam Ndeye Dia maa ngi koy wax fanweeri kaso faat yi. le quotidien Idi. contrôle yu parrainage yi en danger la rek daal di xaatim ndax tamit jafe-jafe yi nga xam ne moom la nekkee ci yile jamono. le soleil moom kay président Macky Sall. projet wu cent mille euh, logements yi enrôlement bi daal nañ koy door fa nga xam ne moom moo di ca diaspora bi maanaam ca biti réew yenn ci doomu Sénégal yoo xamante ni euh, ñu nga foofee nag lu ni mel moom moo leen daal di euh, yitteel. ñu dem ci libération. phase deux bu euh, TER bi jàppal ne BAD accable euh, l'entreprise euh, Tocosel lu ni mel mu ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page cinq bu libération libération itam ak ñenn ci ñoo xamante ni dañuy rek daal di coppi yenn ci ay cachet maanaam yu wane ne ay maire lañ wala bokk sous préfet ak yeneen yu ñu xeetoo jàppal ne waaye takk der yi daal dañ leen di jàppee fa nga xam ne nag moom moo di ca diwaan bu tëngeej page trois moom dikkaat na ci turu ñi nga xam ne nag ñoom la ñu teg loxo ñaareelu wi 4 gën koo faram-fàcceel ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy ah, teewlu ginnaaw libération beneen ab yéen kaay. la tribune. la tribune ak itam njuuj njaaj bu ñu ne dafa am ci lu soxal wàllu ah, parrainage bi lu ni mel ah, faaw rek ñu daal di koy joyanti ndax dafa am ay fichier yu wute am déet laaj la boo xamante ni suñu ay naataango yu tribune ñoom ñoo ko daal di samp faat yi. ñu dem ci Walf Quotidien. Paris sportif maanaam li nga xam ne moom moo di naar bi sonal ñenn ci ay élèves faat yi ñoom ñooñu nag daanaka carte xaalis la foofee euh, mu mel ni nag euh, naar bi day jël li nga xam ne moom moo di euh, seen i ay koppar ma Mamadou Dia candidat bu pur les sénégalais sont fatigués maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais yi lot nañu loole la daal di yëkkati ci ay kàddu. le les échos. ak itam la xew ca diwaan bu Pikine Est mi ngi ci li nga xam ne moom moo di page 4 page beneen itam ñu waxtaanee lu soxal langue politique bi ak ñi nga xam ne daal nañu jàll ci ñaareelu tour bi Fatick. ñu dem ci bés bi parrainage ba tey la rek daal di euh, xëy fësal ak itam segg seggat wi nga xam ne euh, ñu ngi koy def euh, Idy en sursis le pur assure wante mais la ci daal di toftal pdf ak itam Serigne Mboup ñoom nag dañoo rek daal di coincé ndax itam doublon yi nga xam ne sonal na leen lool Fatick. ñu dem ci las. ñu dem ci las ak itam yokkum payoor yi jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di jiit yu bokk moomeel yi maanaam maire yi moom njiit mu réew mi président Macky Sall daanaka nag da leen daal di yi nga xam ne ñoo nekk fii ci réew bu Sénégal. aywa Vox Pop la mu wax bokk na ci présidentielle atum 2024 le massacre se poursuit euh, seuls euh, deux candidats sur vingt on passé le parrainage maanaam euh, ñaar képp ñoom ñoo jàll ci ñaar fukki candidats yi nga xam ne jàll nañu ca conseil constitutionnel Fatick. ñu dem ci source A. source di kat ba tey ci candidats yi nga xam ne nag dañ leen daal di recalé ci li nga xam ne moom moo di wàllug parrainage yi ci suuf itam gis nañu fii ñaar ci ñoo xamante ni samp na seen Euh, mu ñeel élection présidentielle atum 2024 Aly Ngouille Ndiaye euh, ñu ngi cay koy gis ci li nga xam ne nag moom moo di ci suñu euh, ndeyjoor Boun Abdallah ci suñu càmmiñ page 4 jàpp 5 moom moo xaatim loolee. waaw ñu dem ci le Témoin quotidien. élection ba tey ci lu toll ci ñeent fukk ci ay candidats faat yi jàppal ne ñu ëpp ci ñoom nag dañoo rek daal di invalider seen ak candidature bu mel ni ña ca jàll ñeent képp donc lañ ci rek jot a wàññi. waaw Sud Quotidien. Sud Quotidien ak waaye la rek daal di xaatim ndax itam lenn ci loo xamante ni war na ko war a mën a euh, joyanti euh, ci kilee nga xam ne euh, moom moo nekkoon deuxième position ci élection présidentielle atum 2019. tàggat yaram ak record. Kouyaté ak itam ñaxate débarque lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page six bu record ci li nga xam ne moom moo di fukk ak ñeent ci ñaar fukk ak juróom ñaar ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di gaynde yi ci tanière bi dikkaat nañu ci. bu baax a baax wàllu lamb itam loolee dikk na ci moom record waxtaanee ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñooñ yu euh, bees bo bombardier ñaax wala boog bombardier wala non non. ki nga xam ne moom moo di Modou Lo euh, xarañ Lo voilà exactement ñu toll ci ñaar téeméer ci ay millions la ñuy laaj ngir rek ñu mën a laale ak ki nga xam ne moom moo di borom takk ci rip dikkaat nañu ci ligue un dixième journée décalé daal nañ ci dikkaat ci li nga xam ne moom moo di euh, page xam ne euh, moom moo di record waxtaanee na lu soxal wàllu euh, kan bi euh, Fati. aywa sama doomu baay Seyni ci stade. Seyni ci stade ak itam Elimane Ndiaye mi ngi ci li nga xam ne. Ah, voilà mi ngi li nga xam ne li nga xam ne moom moo di yéen kaay wile moom attaquant bu gaynde yi waxtaanee na li nga xam ne nag moom moo di kan bi je pense que la CAN va m'aider. aywa ñu dem jeexalee ak sunu làmb. sunu làmb ak itam ki nga xam ne moom moo di xarañ moom bi nga xam ne dégg na daal bu mujj ci digganteem ak nga xam ne moom moo di booy Niang euh, waxtaanee nañu euh, combat yi nga xam ne nag am na ko boobaak léegi mu nekk ci li nga xam ne nag moom moo di lamb ji ak itam defet yi daañ dikkaat euh, faram-fàccee ku ci nekk kamu daan itam daañ ci dikkaat ci li nga xam ne moom moo di ñaareelu pàcc bi pàcc bu njëkk waa ngoog lan lañ fas yéene waxtaanee xanaa ci wàllu politique bi waaye Chérif Malick ñu fàttali rek fonction bu bees bi moo duloo am Pikine xale ya ko wax nag du samay wax meeru Pikine gars ca na de am nañu ma woowoon sax ci week-end bi ci fête ci mbirum Modou Lo mais mënut a ñàkk Chérif faaw nag ñu wax ci. Euh, yan woon nga commenté bi lan la làmb ji la wala làmb ji bëgg démb la woon. <laughs> nekkul Malick Thiandoum kan <laughs> damay laaj. kuy maire Pikine. da ngeen koo daal jeexal na waa Pikine moom. laa bëggoon dégg Malick merci beaucoup. <laughs> Chérif <laughs> li nga ku rëy na xam naa balaa ko kii bee jeex dinañu am euh, gaa yi ak li ñu wax ci Modou Lo ñu ah, gaaw ci ak commentaire bi balaa Chérif di gedd di wàcc plateau bi ndax fi mu ne nii xol baa ngi mi ngi ci wetu loxo bi waaw ayoo ñu dem ci way politique fair play ñoo ne ci way politique yi Chérif ak conseil constitutionnel mu mel ni euh, candidat yu bëri euh, tey dañoo war a euh, en 48 heures dal di nag régulariser ñenn ñi sax dem nañ ci ay junni junni parrain mu mel ne conseil constitutionnel liñ segg ci tame bi daa mel